K-Man Vision, votre site préféré vous présente. Deux courants de Bourg, 5 millions de Dakarois. Le 3 juin, à l'esplanade du Musée des civilisations noires de Dakar, voici les fils de Mour, Akhloubrik Paradise. fait plusieurs cartons au stade Caroline Feidenbourg, après une tournée internationale dans tous les pays d'Europe, Akhlou Paradise est de retour sur scène. Tifateli fàttali Group groupe nouvelle génération bi njëkk concert stade Iba Paradise ñoom groupe nouvelle génération bi du musée des civilisations noires le samedi 3 juin 2023. Son et lumière, feu et flamme, de et Ara arrivent sur scène à l'esplanade du musée des civilisations le samedi 3 juin 2023. Attention, 20 h le concert bi Tambalé. Bala 0 heure mieux doxi seen 20 20 heures kon na ngeen a yegsi tel ou dugg te ticket ndax ticket yi 3000 prévente jour J 5000 VIP 10 000 et cet événement c'est à ne pas rater infoline 77 493 93 44 77 030 05 10 ou le 77 383 31 85 partenaire officiel de l'événement Nescafé One xbet Sénégal kim

loolu amul leen lu ñu si xeebee tamit. pourquoi pas nga si xeeb lii affaire yambar la te sa gel di dem salon nga topp ci. tut tut tut yi xaw ma lay wax. dee naa geex na ñoo yem da nga gaaw dégg nga. te li nga ci xamul nag depuis ma jugee France ba léegi génn damay tuju rek ma mel ni prisonnière man mais tey moom dañuy génn. dañuy génn xaw ma dañuy dugg mais benn affaire naa la ko suñ fa yàggee di nga am gàcce. man de sama nekk façon dinaa la ne picciroo ba nga dootal sax nelaw. boo fàttali kilifa laa wax bi jeex. waaw mën na mu fexeel suñu xol sans soirée wala soirée rek mooy fexeel xol. xam nga yow lan nga xamul man depuis mu jugee France ba léegi teew mu soirée te dama koo nam mu dama nam mu fecc. le talent tuuti apprécié tamit fii defar lu rafet nii. imaam ma ne tey suñu kër laa toog dégg nga xutba mais bi ngi ne xayu wannaas te jël jullit ñi. Eh, bàyyi di yàq ay yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi loolu lay tekki bàyyi di ma jaay en plus. dafa <laughs> nga nekkoon sax toog sa kër dégg xutba bi foo ne woon. non ñëw naa bi ngay daan itaqulaa ki mu ngi fekk ci buntu jumaa ji. bu ëllëgee dañ ñëw heure. baa ñu commencé xutba. Ah, yow jàkk ji ku tourné gis la ngay tàgg ay jumaa. ah imaam nekk xam nga rek dafa fekkoon may sangu nekk xam nga su may su may dem juma ajuma damay yaa ma doon wax naan ajuma da ngay sangu farata moo damay sangu farata nag damay sangoo ñàmpe sa pare teg ci farata gi day ko teel a def te imaam imaam man sax bëggoon naa ñu waxtaan imaam ndax man imaam euh, man dëkk ba laa jógee suñu dëkk ñëpp ma xam njaay bopp ñun famille bopp lañ moo tax loolu indi njaay bopp rox sa bopp bi de imaam nekk imaam nekk imaam nekk yow nekk imaam nekk yow nekk danga may xas quoi imaam yow ah yaa yaa laa mos bopp bi di dund waaw mais njaay bopp laa wax rek imaam yow yow sa njaay bi lan lan

baax na en euh, fait sax lii occasion la ci man parce que démb maa ngi doon waxtaan ak mami bu baax te bëggoon naa jotaay bi tamit yéen ñaar ngeen fekk ak nu mu mënti demee yéen ay xale ngeen. <laughs> xale. waaw. ñun kay duñu ay xale. ay yu ndaw. xale. waaw. baal moo xale ku ñu mënoon jëkk ñu dem sa yi xam nga. maye jëkkër nga dem sëyi wute na ak nga nekk ci sëy bi sëy ko ku ñu ko buñ ko amee sëy ko ci suñu moroom yi dong ñooy sëy kon baax na loolu amul benn problème bi ma damay jaay ay wàllum produit yoo xam ne pour maanaam wàllu jigéen comme loo xam ne maanaam si boo ko diwee xam nga xale ji dañoo tàmm léegi yokk ay affaire ay affaire quoi. eh wax ji mu leer imam laa waaye ci dëkk bi laa dëkk. ci société bi laa bokk maanaam da ngay jaay yoo xam ne day yokk ay awra day yokk ay jëm voilà dama bëgg nga xam ne l'islam yàlla dafa tere lépp loo xamante ne day yokk wala day soppi jëmmu doomu aadama bi dafay tere jullit mu def ko hmm? en plus gis nga jigéen yi ngay jaay say produit da ngay bàyyi waale xel ci ñoom tamit dangay ngay jël say distance par rapport ak ñoom distance maam jaay mi balaa gën a neex dëgg nga ñëw leen naa leen lii boo ko diwa sa dara du tëju. mais xam nga loolu boo ko defee jaaloo du c'est pas seulement acte bi mais Diallo xool beeg. comportement bi seen biir Imaam Imaam Diallo ma de. waaw déglu ma wax la rek li ngay def nii waxuma la sax Diallo mais da nga war a moytu yàlla dafa ne wala taqarrabu zina bu leen jege bu leen jege Diallo nga bañ ko jege balaa nga koy def sax moo gën. donc yow li ngay def ni da nga ak ñom imam sa jarba boobu noonu junior kooku nga wara yedd de ndax man jaar rek laa sikko ñu damay jaay gën dem yow sax ci la ngay yëngu man salon la yor xam nga japp nga ci dara alhamdulillah mais pourquoi pas tay salon bi nga yor ñu la ci dégg ci aduna bi yépp la la tapis rouge kuy waxati salon bu ñu waxé ben ñaar bi yow da nga ciy bokk mais mën na nek mais lenn kessé mo koy may muy jom fulla ak fayda xam li nga doon ki nga doon ak fi nga bëgg a dem imagine yàlla def la nga am daraja tey par exemple mu nekkoon Binta ñaanu ma ko yàlla nga dem ba yor salon bi gën a mag tey ñu war laa génn ci tele bi ni la joxeel conseil di nga ko joxe mais malgré doo ko joxe comme ni nga ko bëggee te boo paree boo yi loolu ñu jël léegi muy vaar dañ la fay yóbbu ni xoola kiy joxe conseil moo nekkoon nii moo tax bu leen dara dugal ci lu gis nga bu ngeen bëgg nit bëgg nit bu leen bëgg bëgg bëgg nit ba tax mu def loolu leen après lu ngeen réccu continuer leen ci li ngeen nekk ngeen gérer seen bopp yàlla dina leen dimbali fa ngeen bëgg ak ngeen àgg fa loolu daal lay sakku ci yéen te bu ngeen ma ko defalee moom lu ngeen bëgg ma def incha allah dégg nga incha allah dégg naa la loolu moom tënkër sotti paa dinañ ko def yaay suñu mag ba yàlla may ma jëkkër ju mel waaw incha allah yàlla baax na amin di nga ko am léegi. imaam man jëwuma de dama xam ne junior dama xam ne junior maam moom benn lañ su ma soo ma waxee fii su ma ko yóbbu na ko imaam nee na lii baaxul lii baaxul lii baaxul. en tout daal wax naa la li ma lay wax. mënuloo di jiitu si jàkk ja di bale léeg-léeg fu ñu wootee jàkk ja yaa fay jiitu di lal basang di defar <laughs> yaa ngi dégg mais boo paree nag dem def si yële yii nii. Ah, bu yàggee day xaw a doy waar.

voilà le cadeau. maanaam ay ndey Fatou yu mu nekk nga de waaw. Eh, bu ma jege de. yow ni ngay ñëwee. ah, ah ndey Fatou waaye tu m'as trop manqué. mais naka naka mu. maa ngi nii rek. yaa ngi si jàmm. Ah, yaa ngi si jàmm waaw. oui mu ngi si jàmm bu baax. Amina nu mu naa la. maa la raw seen. naka voyage ba sonn loo. non non sonn ma. ana mère mu ngi si jàmm. sama yaay mu ngi si jàmm. voilà dem na ngeen toog. waaye. wa sari man ñaata temps la genn man dem rew tax bayila fi luma ko taxa def ah Dani sama doole pour am luma dundale sa sama ak sama way juri du lolo tax yow tamit defé ko non sa papa li mu lay wax ni def ko bëgg na nga dem rew tax pour jappalé ko ndax sonu na nak fimné ni jappalé ko dafa jot nak man kay lenn rek ma jaaxal noy def papis yow yang ci waxi koku ba légui maa jéggalu kon waaw Mariama naka def Sarr Sarr Sarr Sarr waa kay jara got ina ngi si jàmm alhamdulilah salaamaaleykum waaleykum salaam allahuma amin ko a amin amin amin amin papa ma ah. xol day seddan ndeysaan wax dëgg yàlla dëgg la jërëjëf te di la xamal ne nag léppaa ngi ñëw ndax gis na ma lépp. bokk maa ngi gis koppar maa ngi gis dund bi. maa ngi gis naan gi. allah jërëjëf leen rek. incha allah yàlla baax na. incha allah ndeysaan na sama xarit. man dégguma ko ba mu demee ba di Sali. déedéet <laughs> de. ah Sali de dimba rek waxtaan a ah, waaw wa waxtaan nañu téléphone bi moom owu la ba léegi. ah sama xarit bi am ah, ay xarit yu bees ah, sañul loolu daal daka sañ kon ka ma ma rendir ka Fatick <laughs> sali kay kenn rek la amul aw. wallaay xam naa ba moytuwul peut-être ndax jàppul sab numéro wala yoogu. xalaat na ma lool mën na cee am. mel ni oo na ndax guddi. lamu mu guddi guddi guddi tey dina mako o jox ko numéro alhamdullilah dina la o yalla baxna na ku góorgóorlu na incha allah te fekke ni mm. sax si mm-hmm. balka bàyyi inshallah ndax num hel dal na si in fonu mantine rek num hel dal na si in tan nu ngi leen la ñaanal ndeysaan jara bot ah yéen a ñu ci yere rek ah, xam nga ndaw mom amul lu jaamu yalla wallahi xam nga ndaw yu bari man damay japp ne dañu reer rek motax ni ñuy mm. comporté wo ñu diko def wallahi ndax bo xolé ni yalla rayna ci âge bu nek xoolul mag xoolul xale kon boo nekkee ndawit war nga koo mën a jaamu ni mu ko ni mu waree ci sa diggante ak moom mm. kon yéen nag kenn gàcce ngaalaama rek lañ leen di wax ndax nag yéen a ñu wan yoon way jur wu nekk mooy wan doomam yoon kon wan ngeen ñu yoon te ngeen ci yoonu siraatal mustaqim ba tax ñu xam fi ñuy jaar mm-hmm. ëllëg bu leen sunu borom laajee kullukum raay wa kullukum mas'ulun an rayatihi du ngeen du ngeen du ngeen sëgg de c'est parce te ngeen ci yoonu siraatal mustaqim gàcce ngaalaama rek lañ leen di wax ndeysaan ndax lii jafe na si zone sa tay bii mhm. jigéen ñi léegi nii mhm. a ni réew mi mel lii jafe nasi si dëgg wante nag mhm. yal nañu yàlla dooli sutura amiin incha allah sàmmal nu leen sàmmal nu it ñooñu incha allah jarabot ndeysaan xaar ma dem xooli ji sa baay balaa moo gën a mer na wax naa ko de dina la oo guddi nama wo way waay dina la oo guddi <laughs> jara Badou way maa ngi si yoon ah, jeuf xaar mo holi sa bay bala mo meer lay sam papa dina ma rey dafa neex leba wa waaw Badiane xam nga ni pile bii nga jox te manu nga manon nga mako jox ni ma ko ay way ni niroole pa la prochaine fois Mm. dina andi benn incha allah. yow looy wax yow bàjjan kii moo ne moo indil pul. moo la ko indil pul bi tey indaaleel ma. waaw ñamal yére bitim réew rek xam naa ko <laughs> yow moom fii nga yem. <laughs> du ma fi maxe de fii laa lay dem. yow moom dëkk ak yow rek kaas. mooy ngay di la toog. Hmm? waaw ña ko foofu. ah ça se passe bien de moom. Hmm. Ça va Ça va. Bien. Les Fatou euh, Parce que. Mais j'ai fait exprès de créer cette surprise-là. Hein? Normal, je suis la princesse. Oh. <laughs> Mais, un témoignage, ça m'est venu de, du conseil de direction ci école ba muy jàng fële ci Europe dañ ma votre fille est excellente Wow! Hmm? waaw chaque examen est surtout toujours en tête Moro iko ci man nak des qualités intellectuelles yo xamni ci man la ko ah ak Banjara. waaw ah ak Banjara. da ko jàng. si vous plaît s'il vous plaît <laughs> s'il vous plaît ah c'est dingue s'il vous sama namm daa fekk sa namm mu tok sama boss a sa boss deg du rek di perturber mu japp dor ba mu dee sul ci kàmb sama boss a dàq sa bos. non. waye sa ñaar ni ñi ci kër gi ba léegi. Saalaang Ndeer mi. li waykat bi naan suma yalla bëggee na ma baye ak yow. mais yow it bu mu bëggee di bàyyi baye mak ñom hey attention celle-là c'est ma princesse adorée. mais eh, papa c'est moi qui suis ta princesse. bon. Merci, mais attends, mais Anna El Malik. Comme d'habitude. Mamdal. Voilà, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Ah, il faut prendre des mesures sur ça. C'est pas normal. Tu la duc. Mais sa va bien moi, moi, moi, arrête tout le temps. Hmm. <laughs> Donc, on est qui qui dira comment? Agman. Oui, jamais ah, moi, j'ai rien dit. Hein. hein. J'ai rien dit. Ben, j'ai rien dit. Voilà, je vous laisse. Mangez bien, mangez au boulot. Hein. D'accord À tout à l'heure. pendant combien de temps de la dernière? pour mën laa jël si nga jékki-jékki ni jamet sama kanam. surprise laa la bëggoon defal pourtant démb li ñuy waxtaan yëpp maa ngi dajale dajale samay bagage xanaa xamoo ni parfois surprise du baax. ndax su ma amoon cardiaque damay dee. gu ma dee yii dafa teel. moom laa la moom. boo ma rawee gaañu barki téere maam yàlla. Ah. yàlla naa sul sama bopp boo ma rawee gaañu. <laughs> non man est ce que mën naa dund sans yow. mami sànq ba may dugg maa ngi koy woo mais dégguma ma. yee baal mu sedd. Hmm, mami bu du sama rakk dama naan daa may rab. si. bu amee de yow it udah nga ndax yow da ngay dikkale parfois. non xam nga man dikkale bi yëpp dama laa gisul. Lima ma la indil nag ci xeetu jàllaa bi ëpp na. non dama ko sol. demoo màkk ren de waaye alaaji moom alaaji jaraaf faaw ñu la ko. yow non man alaaji jaraaf fii ci réew mi ma war sol ay jàllaa bi ak ni ma moole. samay xeetu jàllaa bi amul dama bëgg chaque jour nga may solal benn man nga koy solal de. kan la koy solal keneen salal de do fi xalaatu ñii rek la bañ yal na ma yalla bal bal bañ ki bi xana xamone sama mbeugel ci yow nak amul finition. wa li nga def différence takal yow sa gémmiñ gi saful guro. dara safu fi. demal jëndi guro nga dimbali ma sàkk bu baax amul pa buy takk timis ok nañ ko wo imam bi fi la dekk jox ma ci jàllaabe bi ma sol nga la robb tay lay tak sey bi ah am nga soxna si euh, dafa mel neex dong ma recevoir la parce que ni nga def dafa mel ni que forcing la fi ci sama kër mais teewul quand même ma ngi lay déglu hmm. mais ci bu lay neex rek su la neexee ma génn tamit. jaru ko. Hmm. Euh, mën nga wax sa soxla. bon dama ñëwoon pour wut liggéey liggéey moo ma fi andi bëgg nga jël ma sa entreprise ma mais soxna si c'est pas comme ça que ça se passe boo vous bëggee liggéey ci entreprise da ngay def demande d'emploi sa lettre de motivation ce CV, bon, il y a tes qualifications professionnelles. Ne dépose qu'aux direction des ressources humaines. Pas directement adressé au directeur général. Nous rôle. Vous faites que nous sortons là, profil vous nous ni, bien proposé. Nous sommes dans le Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Moussa Mbaye, go xew man su may tëdd di nelaw sax teewul li ma bëgg dama koy am. kon lay lu may wut fii <laughs> monsieur Mbaye maa ngi bomb boo xamante ni su ma ko dooree fii dëkk bi day wàcc de déggoo ma de danga may jël ma liggéey te damay liggéey sax nag ndax loolu laa bëgg. loolu ma jëlee si mbedd bi ma ñëw dugg fii de monsieur Mbaye looloo ma fi anti. soxna si est yow xam nga man may kan. bu baax pire. déedéet. soo ma xamoon dëggantaan doo wax ak man avec ce ton là man duma ko ñu chantage moi je ne suis pas ce genre là dégg nga li ma la wax bu baax baax. waxtaan bi de waxtanu bir néeg la woon pourtant. bon voilà ci bir néeg bi da la tok di wax ak yow mënoon nañu tok ñu waxtane ko en famille ni rek comme nee nga ma génn bal ma dem ñibi ñibbi dama dinaa ñibbi. waaye lu tawut a xam daa yàgg taxala maa ngi toog nii di xaar sa coup Khamul dara. yow mi qui bitim réew Sénégal Don wër kër gu basit imo tabaxal nalako. la bi villa R plus 1 pour rafet Nek unité 4 Parcelles Assainies fii ci Dakar pion ouvert commercial position angle avec deux portes d'entrée 160 mètres carrés rez-de-chaussée Amne trois chambres plus salon, plus cuisine, plus toilette visiteur, plus espace familial, une chambre salle de bain et deux chambres simples à garage pour Magamak. premier étage B, on quatre chambres dont trois chambres avec ses salles de bain une chambre simple plus grand salon plus toilette visiteur plus cuisine plus espace familial et deux portes entrées. Ben sur le rez-de-chaussée Ben pour l'étage Waouh, waouh, Kirgi! basit Imo da koy jaay amul collaboration ak banque amul financement de garantie ci gattal ku bëgg ñëwal basit Imo jaay la ko kër gi wote len gaaw 76 491 99 99 Voilà le 77 280 42 34 sur adresse prime extension Dakar